bismillahi arrahmani arrahim bashara allahu tabaraka wa taala suwara naatimi hadihi alqasidati wa xayrahum min almuminina walmuminati maan fi shahri ramadana amal sasin asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi topp seen site Dakar Live TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen te di leen ñaanal koor jàmm dellu siwaat nañu ci nunu leen ko baaxoo indilee mooy seen naafilay weer ngeen koy ànd ak seen oustaz Moustapha mbokk yi guddik fukkeel ci weer ku ca julli ñeenti rakkaa bu ci nekk nga jàng ci faatiha benn yoon teg ca aayatul kursiyu benn yoon teg ca inna anzalnaahu fukki yoon ak ñaar ba muy ñeenti rakkaa di ñaari sëlmal mbokki yi lii ma la wax lan cay jàng ku def julli bala moo jóge fa mu ko doon jullee dees na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj allahu akbar mbokk yi lii de suñ borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ka mayoon ma taqaddama min danbika wa ma taaqar ne ko suñ borom na la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj yow doo ko topp dara yow sang mbindeef yi sallallahu alayhi wa mbokk yi kon ci ngëneeli weeru koor moo ñu mayaat daraja ju rëy jooju ci ku def julli gi suñ borom subhaanahu wa taala jéggal la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mbokk yi yemul foofu te des na ko bindal tiyaabay juróom fukki nit ci way dëggal yi allahu akbar mbokk yi way dëggal yi doon ñu jafe ñoo xam ne ay benn benn lan maanaa ci ak néew rek ci li suñ borom subhaanahu wa taala bind nga xam ne seeni daraja bokk na ci daraja yi gën a rëy yi gën a mag ci suñ borom subhaanahu wa di takkal ay jaamam ndax ci daraja yi ba suñ borom subhaanahu wa di lim da wax ne minen nabiin wa siddiqin ginnaaw bu mu waxee yonant yi rek way dëggal yi la ca teg kon mbokk yi daraja ju rëy jooju bokk na ci ngëneeli weeru koor ku def julli guy danga koy borom subhaanahu daf lay fay tiyaabay juróom fukki nit ci way dëggal ak tiyaabay juróom ñaar fukki nit ñu dee ci jihaad te ku dee ci jihaad mbokk yi mooy tiyaaba ju mooy daraja ju rëy joo xam ne kenn du la sang maana say yére noonu lees lay dencee ndax yére yooyu dafa bokk ci ak deret ji mu taq dafa bokk ci garaat yi nga xam ne garaat yi gën a gànjaru la façon borom subhaanahu wa te bala moo génn àdduna dana mus lu bokk ci meññeetu aljana allahu akbar mbokk yi kon julli gi daal wanewaat na rek ngëneeli weeru koor ngir daraja yi rëy yu mu àndal mbokk yi tey mul foofu de ëllëg yawmal qiyaam dees na ko ràmmuloo juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne sawara yay na leen bi maana ñu sun borom subhaanahu wa taala atte ba seeni jëf yu bon ëpp seeni jëf yu baax bi maana nin ko alquran jàngale faman saqulat mawazinuhu wa amma man xafat mawazinuhu nga xam ne ñaari balance yi sunu su benn bi daanoo rek nit ki ab atteem euh, commencé leer ci moom kon koo xam ne nag suñ borom subhaanahu wa ñi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala atte na leen ba sawara yey leen ñu war a dem sawara ñooñe juróom-ñaar fukki nit ku def julli gi danga am maqaamaam ràmmu leen ca yóbbu leen aljana kon daal mbokk julli gu ama amatee solo mu ngi nii yàlla na suñu borom subhaanahu wa taala nangul leen te nangul ñu maa salaam ba suba ak jàmm bismillahi arrahmani arrahim bashara allahu tabaraka wa taala suwaaranaati min hadihi alqasidati wa xayrahum min almuminina walmuminati maan fi shahri ramadana amal sashin aada saf loxo aada saf la mooy borom crevettes yi borom poulet yi borom neem yi yow mi bëgg crevette pané wala poulet pané wala li nga xam ne mooy neem rawatina beñe wala fataaya daw leen gaaw dem sa aada saf loxo rawatina nag yi xeetu jus baax baax jus naturel yi bisab buy daqaar ay waay déggal lii bépp xeetu jus boo bëgg rek daw leen gaaw dem sa aada saf loxo loxom moom képp la amul keneen ku mel ni mu aada saf loxo numéro baa ngi noonu 77 470 97 15 ay dëgg-dëgg aada boo jekkoo del baale wooy sama ndey consommé local la ñuy wax ay aada